أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala mi ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi jéem ci sunu kemtalaayal kàttan fàttalante ak yéen ci doomu ndey bi tomb bi mu wax ne moom mooy sababu daja bi te mooy ñu waxtaan ci xijaab mooy muuraay xam ngeen ne tey ci àddina bi am na gox yoo xam ne su ko fa jigéenu jullit buggee def dañ koy bundu xataal léeg-léeg sax dem na ba yenn saa yi ñu jàpp la di la yóbbu kaso di la tëj wala ñu lay amande di la fay loo ngay fay am na ci yeneen côté yoo xam ne boo ko fa defee dootoo tekki dara bu doon da ngay jaay kenn dootul jënd ci yow bu doon da ngay ut liggéey kenn du la jël bu doon sax yenn saa yi da nga nekk ku amagul jëkkër kenn du la tàkk ci yenn gox yi say mbokk dañ lay bàyyi say am di jàmm say dëkkandoo ñu commencé nga nekk ordre du jour ci koñ ba suñuy waxtaane yow la ñuy waxtaane te loolu ñuy wax alxijaab du lenn lu dul buñ ko doon firi ci arab mooy baat boobu tudd alxijaab danañ fekk mu nekk satrul badan satrul badan mooy muur sa yaram loolu kese la jigéen jullit boo xam ne yàlla moo ko sant ne ko solal nii melal nii muural sa yaram mbokk yi ndax muur yaram jigéen muur yaramam war naa indi problème ci àdduna bi muural sa yaram kese est-ce que war naa indi problème suñ mu nee bàyyi nit ñi futteeku ku nekk di sol li la neex ñu dem ba jigéen ñi daanaka léegi awra yaa ngi ci biti am jigéen joo xam ne dane man li yàlla bëgg loolu laay def mooy muur sama yaram est-ce que kooku war na am problème waaye tey kookoy ki am problème ñun ñi ñëpp dañuy bokk dund di gis xale bu jigéen bu def yaramu neen ñu ne ko lalal naa la walla ñu gis xale bu jigéen bu def yàlla bëgg ñu ne ñaan yow yéen ngeen a ëppal li mooy lan kee def yaramu neen macha allah nga gis yenn saa yi sax benn paa bu dindi kaala bi lal ko mu ne xale bi lalal naa la waaw toll nañ foofu lu ko waral mooy valeur yi ñoo soppeeku xiyam yi nattukaay yi li yàlla tëraloon ne nii la ñuy nattee lu baax nit ñi dañ koo soppi loolu yonent bi doon wax ne bis a ngi ñëw maa ngi nii di leen séen di ngeen dem ba lépp lu baax da ngeen koy def lu bon saxaaba yi tiit ne ko loolu dina am ah mu ne waaw waaw di ngeen xëy suba di digle lu bon kon ni ngeen déglee loolu li ngeen doon digle lu baax bal sax dootu leen ko def da ngeen di bàyyi digle lu baax di digle lu bon yonent bi moo waxoon loolu est ce que loolu nekkuñ ci tey benn gën a gën ci mbokk yi hijab te mooy muraay bi ci définition l'islam na sànq baat bi ñu doon wax mooy muur yaram mooy baat bi kese ci arab su fekkee dañoo ñëw nag léegi ci l'islam da ngay fekk muy lu ñu boole al majmua min al ahkam lu ñu boole ci ay atte atte yoo xam ne yàlla moo ko dajale ak yonentam daa di koy tëral daan ne jigéen ji nekk jigéenu jullit nii laa bëgg mu mel ci lislaam loolu mooy alhijab islaam dundin la diine la lislaam moom dafa bëgg jigéen ji bokk ci moom ku ko gis xàmmee ko xam ne kii jigéenu jullit la dafa am benn jigéen bu jóge ci yenn dëkk ci dëkku lislaam yi lu tax ma ne dëkku lislaam mooy fépp foo xam ne normalement jullit yi ñoo fa ëpp dëkk boobu dëkku lislaam la war a doon comme tey Sénégal bu fi nit bu fi jigéenu jullit jóge woon dañ naan jigéen ji jullit la parce que boo xoolee cosaanam ak li muy dund turam ak lépp jullit la benn jigéen nag mu jóge ci dëkk benn dëkk ci dëkk yooyu ci dëkk araab yi mu dem France fekk dafa am jëkkër muy def lune de miel am comme dañ ko takk mu dem France muy defi noosam mook jëkkëram ci gudd yu njëkk yuñ ko takk bu mu demee mu nekk ci benn hôtel moo jëkkër ji mu jékki-jékki dégg ñu nodd mu ne ah lii de julli la jëkkër ji ne ko waaw mu ne ko dama bëgg a julli ji jëkkër ji ne ko demal mu jël saakam mu dem ba ci jàkka bi mu ko mu dugg ci côté jigéen ñi fu ñuy jullee mu ubbi saak bi fermeture bi mu génne kaala bi mu faxas ko teg ci bopp bi defar ko ba mu rafet mu ànd ak mbooloo mi julli bi ñu sëlmalee mu daal di dindi kol bi lem ko ba mu jekk mu dugalaat ko ci saak bi mu bëgg a dem benn tubaab bu jigéen bu julli ci biir jàkka ji benn jullit bu jigéen française ñoo ci moom ne ko asalaamu aleykum wa rahmatullah mu ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullah mu ne ko est ce que yow jullit nga non si ne ko ah wa noo may gisee ma julli fi ba pare nga naa ma ndax jullit nga mu ne ko hal qulti laa ilaha illa allah est ce que yow wax nga laa ilaha illa allah ndaw si ne ko wax naa ko kay mu ne ko waxoo ko soo ko waxoon kaala bi du wàcc ci bopp bi di dugg ci biir saag bi boo waxoon laa ilaha illallah kaala gi kenn du ko jël di ko lem di ko dugal ci biir saag bi mu ne ko est-ce que kaala gi pour saag bi la ndaw si mu ne ko déedéet mu ne ko kaala gi pour fan la ne pour bopp bi mu ne lu tax kon muy wàcc parce que sa laa ilaha illallah bi dëgguwul foo jógee wax ko turu dëkk ah yéen du ngeen ay jullit xanaa mu ne aha kay mu ne waaw lii nag seetaatal sa laa ilaha illallah bi loolu moo tax ñun ñëpp ñu war a xoolaat sunu laa ilaha illallah fekkee yow bàyyi nga bàyyi nga nga am soxna fekk sa soxna melul nu lislaam wax est-ce que yow wax nga laa ilaha illallah fekkee yow bàyyi nga nga am jabar sa jabar melul ni lislaam wax est-ce que yow bàyyi yow wax nga laa ilaha illallah bu fekkee yow xalif général nga sa jabar bi melul nu lislaam wax est-ce que yow wax nga laa ilaha illallah bu fekkee ne bàyyi nga nga am ay doom doom yi jigéen yi meluñu nu lislaam wax est-ce que yow wax nga laa ilaha illallah benn jigéen mu ne man dama waaru ñu ne ko lan moo la jaaxal mu ne jamonoy sedd nit ñi dañuy dem marché jëndal seeni doom yére yu leen di protéger ci sedd nga gis sax ku muur doomam ndax seddaay bi mu ne waaye kenn muurul doomam ndax safara wala est-ce que gisu leen fi ku jël doomam solal ko kawas solal ko rob bu gudd teg ci yére teg ci pliveer solal ko ay gants ah muur ko ñu ne lii nag mu ne dafa sedd ii sedd bi baaxul day gaañ xale yi wala est-ce que gis ngeen fi ku muur doomam ndax safara naka la ñuy protéger woo ci sedd te duñu protéger woo ci safara kon foog ñu xam ne muuraay bi ñuy gis nii jaamu yàlla la ibaada du du xewit du xewit du mbooloo du association du bokk ci xeet waaye bokk ci lislaam la bokk ci lislaam loolu moom mooy mu ne moom xijaab lu yàlla rëdd la ci sharia ndaat ne nii laa bëgg jigéenu jullit mel nii sharia subhanahu wa taala lu tax li takuna alxisna alxasin alladi yaxmi almara ngir mu nekk benn kiiraay benn kiiraay benn barrière boo xam ne dafay aar jigéen loolu la yàlla bëgg léegi nag biñ ko dindee ci jigéen bi jigéen bi aarootul lan ngeen gis tey mooy jigéen ñi nekk ñu sécurité xoola violence bi nu mu bëree ci jigéen ñi lu ko waral mooy mbokk yi kenn ci ñun yéen ñi toog fii ci jàkka ji kenn ci yéen mënul tuuroo lem ba pare mu ne weñ ñi duñ ma laal ku ko weddi bismillah nañ dem léegi Malick si nga jënd lem ñu sotti la ko ci kaw ba ci suuf nga taxaw ci digg tali bi ñu ne bu la benn weñ laal est-ce que mën na nekk mën na nekk lu tax mënul nekk c'est parce que yow yaa woo weñ ñi sa kaw wala yow yaa wax weñ ñi ñëw leen sama kaw jigéenu jullit bi saa yu sàn dindee mbalaan mi ko yàlla muuroon moom moo woo bukki yi ci kawam pour ñu fàdd ko c'est simple loolu yomb la tey États-Unis d'Amérique suñ demee ba naan nañ dañ tàqale essence yi góor ñi jigéen ñi pourtant dañoo am dañu ay jullit lan moo la dugal ci loolu mooy sécurité parce que amatul sécurité jigéen ñi saa ñu bokkee góor ñi essence yi bu ndaw si wàccee day fekk ñu violé ko wala ñu rey ko ci biir. place publique yi lu tax léegi ñu ne nañ tàqale place yi place yi lu tax ñu ne nañ tàqale góor ñi jigéen ñi lu tax ñoom ñu nekk ci yooyu lu tax ñu dem ba ne président bi di wax ne léegi arme nañ xool. ci société bi ñan ñoo ko war a yore c'est parce que yàlla li mu wax mooy dëgg ala yaalamu man xalaq wa huwa latifu alxabir yàlla moo xam moo bind nit ñi yàlla moo xam nit ñi xamuñu wallahu yaalamu wa antum la taalamuun lu tax wa ma utitum min al ilmi illa qalila yàlla moo xam ñun xamuñ li tax ñun xamuñu mooy li ñu yor ci xam-xam dafa tuuti dafa tuuti dafa limité wu xamuñu lépp yàlla nag moo xam lépp yaalamu ma fi samawat wa ma fi l ard ma yakunu min najwa salasa illa wa huwa rabiuhum yàlla moo xam lépp subhanahu wa taala ñaari nit bu ñu àndee yàlla moo leen ñetteel yaalamu ma tux fi sudur xaainat al ayun wa ma tux fi sudur yàlla moo xam li xol yi nëbb yàlla moo xam bët yi wor bët yi nga xool nii sax yàlla xam na yow lan moo ci sa jubluwaay kon yàlla moomu su bindee mbindeefam daa di tëral ci moom ne ko nii laa bëgg nga mel doomu aadama yi bëri ay sentiment wala bëri yërmande wala wala daa di ne déedéet yàlla li mu wax daa métti yàlla li mu wax mënta nekk ñun nañ def lii duñ ci jëlee lu dul rek lii tey àdduna bi mel ixwatal iman yàlla dafa sant jigéen mu awraam pour lan pour mu mën a aaru moom jigéen ji mu mën a aaru pour société bi mu nekk mën a aaru lu tax parce que jigéen benn mbir la boo xam ne góor daf koy aajowoo góor mënta dund moom kese sans jigéen mënul nekk comme loolu am na nag yàlla subhaanahu wa taala bëggul doomu aadama yi bëggul jullit yi ñu dund dund njaay àll mooy dund rabu àll mbokk yi ginaar bu jigéen bu nekkee ci benn koñ ci koñ bi am ay siq est-ce que mas ngeen dégg ñu woote takku ginaar mas ngeen ko dégg pourtant ginaar yaa ngi jur foofu rek ginaar yu jigéen yi fi ñu jëlaay doom nit ñi la xar yi la ma ne ginaar yu góor ya nekk ci kër googu wala ca koñ boobu ñoom la est-ce que dinañ takk sëy bi ginaar bu jigéen bi day génn rek ginaar bu góor bi dàq ko loolu nag valableul ci lislaam yàlla bëggul loolu loolu moo tax xatta aljanna jigéen ñi yàlla da leen a denc du ñu tambaambalu ci mbedd yi xuurun maqsuratun xuurun maqsuratun fil xiyaam dañ leen denc ci ay ti ay tànt bu fekkee ne aljanna lañ denc jigéen ñi te amul góor fii nag ñu bëgg a génne jigéen ñi te mu am ay góor fuñ jëm ba pare futti leen avant ñu leen di génne ba pare encore ñu futti leen moo tax li xew-xew mbokk jullit yi ñun ñëpp yeboo ñu ànd xam ne yàlla dafa bëgg jigéen segu asiyaaj alwaaqi allazi yaasimu almujtama min al iftitaan yàlla dafa bëgg société bi set société bi laab société bi aaru ñoŋu mucc ci fitna moo tax yàlla mu sant jigéen ñi dañu muur seen awra yi léegi nag biñ ne loolu dafa metti ñu boyal jigéen ñi lan ngeen gis lu xew société bi dafa taq dafa tilim dafa salte doomu njaaloo yi ñi ngi fees dal ci biir dëkk bi néew na tey kër gooy dugg lu dul am na doomu njaaloo néew na laa wax këru imaam yeeg këlif xalifa général yeeg këru waliyu yeeg këru muqaddam yeeg cheikh yeeg chef de quartier yeeg ma ne dafa fees del ak ay doomu njaaloo laa wax benn paa dafa toog ba ci yàgg rek mu jooy ñu ne looy jooy mu ne mendi sama biir kër mendi sama biir kër ci pël pël pël bu sant mendi mu jooy doomam daa dem ñu ëmbal ko kooku moo ko ëmbal ku sant noonu moo ko ëmbal léegi sët bi nu muy sant pël bu sant mendi ina woo di fuuta hankkadi ari hono watten ko allah wino ko enen woppi jaxna loolu mooy wax bi léegi dëkk bi yëpp a takk parce que dañoo bàyyi lu yàlla wax subhanahu wa taala yàlla ne woon nañ denc jigéen ñi leen aar pour société bi mën a baax ñu bëri dañuy dañu dañuy feebar dañoo dañoo dof c'est parce que su yàlla waxee nii la du ñu xool lan mooy jubluwaay ñoom dañuy xëy na contre xoolal mbirum góor jigéen xoolal góor jigéen nu mu bonee nu mu ñaawee terewul tey da ngay dégg ay nit di ko protéger naan non ku nekk am nga sa liberté ku nekk am nga lu la neex nga def déedéet du ku nekk nga def lu la neex mooy dund kon nit ñi duñ dund ndax yow sa liberté fi mu yem am na foo koo xam ne foofu la tàmbale soo jëlee léegi sa rajo bi nga ubbi ko nga teg sa musique mu yuuxu am na koo xam ne moom bëggul dégg yuuxu yi léegi kooku nuñ koy def yow kay yow yaa bëgg a déglu jëlal sa écouteur nga def sa nopp nga ubbi sa rajo nga toog déglu bu yem ci yow kese waaye déedéet da ngay gis koo xam ne ci digg mbedd mi la ñëw baare mbedd mi indi ay baasam indi saisi baare mbedd mi fi ñëpp di jaar mu baare ko ku am soxla da ngay wiiri ba pare tere nit ñi nelaw di tëgg te lu lu doy waar mooy comme tey dimanche bàyyi bu 10 heures nga commencé ku war a xëy lundi nag ñu def ko ci fenêtre am kooku est ce que bu demee lundi bi dina liggéey du liggéey lu mu xam xoolal kooku niñ ko loree xoolal ku feebar ki nekk ci koñ boobu xoolal ki bëggul bruit bi xoolal xoolal xoolal yàlla bu waxee dara lii bu mu am du question kii société bi yëpp la yàlla bu mu teree njaaloo mais pour société bi mucc la pour pour société bi set loolu moo tax fan la ko tàmbalee ci xool yàlla mu ne xool bi sax nit ñi nañu téye li ñuy xool qul lil muminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum mu delluwaat ca jigéen ñi wa qul lil muminati yaghdudna min absarihinna kon yàlla subhanahu wa taala pour ñun ñii mu aar nu la pour société bi mën a baax ba ëllëg ëllëg ak si biir kuy taxaw fii di wax allahu akbar bu mu wax ba bari ñu naan waay est-ce que kii war na nekk imam est-ce que kii warul nekk imam dama dem ci benn dëkk li ma fa yóbboon mooy miraas buñ demee ñëpp ñëw toog waa jàkka bi ñëw toog parce que bilaalu jàkka bi moo gaañu ñu ne amoon na ñaari jabar kenn ki la nekkaloon kenn ki fase na ko am naa ku mu fase nangam doom am naa ku mu nekkal nangam doom kon léegi miraas bi yomb na nit ñi xam nañ ko papam ak yaayam dundul loolu romb na réglé rek am ku ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum mu ne am na beneen doom bu ngeen fàtte ñu ne doom buñ fàtte ah yow soxna si mu tasal ñaata doom ngeen am mu wax yow ki mu nekkal ñaata ñu ne doom boobu fu mu jóge mu ne waaw waa amoon fële benn doom benn ci ci ci koñ bële doom waaw doom bu jigéen te mooy bilaal bi te ñu ngi ko tagg foofu ci jàkka bi du tardé waxtu mi ngi sàppi première mooy noddu ééé ñëpp def nii gis ngeen yàlla loolu lay bañ est-ce que waa jàkka boobu muy muy nodda léegi xamoon xamuñu woon loolu gis nga léegi problème affaire yi wax ji commencé nan yàlla jubal loolu moo tax mbokk yi yàlla bëgg société bi set société bi aaru ixwatal iman wal i'tar al mundabit allazi tuaddi al mar'a min xilaliha wazifatan sinaiyati al ajyal yàlla dafa bëgg ndaw si jigéen ji yàlla daf ko bëgg a former ndax moom mu former ñeneen kon warul nekk ci lu bon warul dund ci lu bon yàlla dafa bëgg ku jigéen bi jigéen bi ci koñ bi xale bu jigéen bi mu aaru nekk ci jàmm ba ëllëg ak si biir mu mun a former ay góor ay jàmbaar yàlla bëggul xale bi ñu naan ah kii kii de ba mu nekkee xale bu ndaw guy gu daanu la woon guy gu daanu guy gu daanu ñan ñooy ay olof yi ñi olof yi nañu yëkkati seen loxo waaw kon bàyyi la ma laaj ko pël yi ba doon andi bokki yan ki bokki ba doon andi bokki xamu leen bokki guy guy nu ngeen koy waxee ah bantaan kon noonu wiyete bantaan yi so yeni sukaaɓe wonɓe wuro wuro wuro ngoɗon holno ɓe waɗata ɓe gabbay hen eɓe yaga eɓe fija hen allah yiɗa debbo wona waya noon o wona cukalel ɓe wiya oɗo ko bantake yanke o wonno nde o woni boobo bantake yanke sukaɓe hen janggata fijirde yo allah bugul jigéen nekk guy gudaanu guy gudaanu xale yi ci lañuy jàng fo ah yàlla bëggul jigéen mel noonu dafa bëgg jigéen joo xam ne ëllëg ak sibir kenn xamalu ko dara mu ngi set ba ëllëg ak sibir bu amee ay doom mu mun a former doom yi xam nga yaay joo xam ne dafa ne doom ji eh doom ji ne ko ah yaay nopp amul kubéeran ba nga ca tollee yàlla bëggul yaay bu mel noonu loolu moo tax mu ne ku jigéen ki nan ko yar pour mu mun a former ëllëg doomam su waxee doomam toogal mu toog waaye yaay boo xam ne bu nee doomam toogal mu ne ko yaay toogoo woon de yaay toogoo woon noppi yaay noppi woo woon de bàyyil kii yaay duma ko bàyyi de parce que yow bàyyi woo woon sama papa géej la la doon yóbbu géej wax nañ ma ko de nga loolu yàlla bëggul loolu yàlla dafa bëgg yaay joo xam ne ëllëg ak si biir ndeysaan dafa set dafa laab dafa fegu ba bu nee doomam ndax mës nga maa gis ci mbedd mi doom ji mu ne déedéet ndax mës ngaa dégg ci man lu bon doom bi mu ne déedéet ndax mës nga maa gis fu bon mu ne déedéet mu ne lu tax kon yow nga bëgg a bon ko defee doom bi yaram bi mën a daw doom bi mën a dellu siwaat xam ne man yaay bu ñuy roy laa am waaye yaay boo xam ne danaan doom ji gis nga man laaj ma sa baay dama ko daan miirloo koñ yëpp laa ko daan taxaw looloo mu may koñ yaay boobu baaxul yaay boobu du jur doom bu baax loolu mooy yaay boo xam ne bi nga nekkee xale bu ndaw guy gu daanu nga woon loolu baaxul bokk jullit yi yàlla bëggul loolu yàlla dafa bëgg jigéen joo xam ne dafay former ay génération dafay jur ay nit ñu baax Abdallah ibnu Zubayr xam ngeen ko dafa ñëw mu ne yaayam Asma bint Abubakar yaay kii may xeexal moo ma mën de yaay ji mu ne ko demal demal nga xeex ak moom bu fekkee ne yow xam nga yaa nekk ci dëgg da doon wax loolu yaay ji parce que xam na bu demee day dee mais bëggul mu dee parce que bu dee aussi waa ji du ko bàyyi foog waa ji jéem a def lu soxor pour yaayam yëg mais moom mu bëgg a dindi loolu ci yaay ji yaay ji ne ko demal bu fekkee yaa nekk ci dëgg mu ne yaayam xam nga lu may bañ ma dem mu rey ma mu indi ma fii daaj ma fi woola nga ñëw xool day métti ci yow yaay ji mu ne ko demal xar buñ ko rendee ba pare buñ koy fees du ko yëg walla xar buñ ko rendee ba pare ñu koy fees di ko tojote est-ce que dina ko yëg demal mu dem gis nga xool yaay jooju yaay ji somm doomam pour mu dee ci lislaam mu dem xeex ak Hajjaj Hajjaj rey ko Abdullah ibnu Zubayr sëtu Abu Bakrin Saddiq mu rey ko ba pare indi ko ba ci kaaba gi daal di koy christifié daaj ko ci kaaba gi mu woo yaayam Asma kaay xool yooyu loolu la xale bi doon bañ yaay ji ñëw xool gis doom ji ñu rey ko mu ne ko yàq nga addunaam dina yàq sa àllaaxira déggu leen wax bi de déggu leen ndaw si lu mu wax de dafa ne waa ji ko rey kii sama doom la mu ne ko waaw mu ne ko yow yaa yàq addunaam de waaw yàq na addunaam parce que rey na ko mu ne ko waaye moom dina yàq sa alaxira parce que alaxira yow doo dugg àjjana nga yaay boobu loolu mooy yaay jàng ngeen histoire imam ahmad ibnu hanbal imam ahmad dañ ko doon fitnaal imam abu hanifa afwan imam abu hanifa jàngeen ñu jàpp ko di ko fitnaal yaayam ñëw ci moom mu ne ko abu hanifa mu ne ko ah mu ne ko lii jaru ko de xam-xam bu demee bañ la ciy dóor nga bàyyi mu ne ko yàlla yaay lii du mbirum xam-xam kese lii mbirum àllaaxira la te man damaa war a aar xam-xam man damaa war a aar xam-xam waaw ma war a aar xam-xam yaay du mbirum àdduna rek mu ne ko bu ma ci bëggoon àdduna dinaa ko am waaye mbirum xam-xam la te man yaay damaa war a liggéeyal xam-xam yaa ndekke loolu la xoolal yaay yooyu imam malik jàng ngeen histoire lan moo tax imam malik nekk borom xam-xam yaayam imam malik dafa bëggoon nekk woykat yaayam ne ko déedéet yow munoo woy benn sa papa bëggu ko woon ci yow ñaar yow malik xam nga ne rafetoo ñett yow yow neexoo baat kon nag malik dama nga jàngi fan la Malik mujj keroog bañ ba mu nekkee ci natt bu metti ba ñu teg ko ci mbaam wëlbati ko ci ginnaaw waa lii Madina di ko dóor ay yat di ko weddiloo masala ba mu waxoon mbooloo ba mu yegsi mu ne maay Malik ku ma xam maay Malik ku ma xamul maay Malik maay imaamu jàkka yonent bi maay jàngalekatu jàkka yonent bi maay xoodi jàkka yonent bi maa koy àtte lu ma waxoon man Malick duma ci dellu ginnaaw kon gis ngeen ñooñu seeni yaay lu tax parce que seeni yaay dañoo fegu woon ay yaay yoo xam ne bis bu nekk mu ngi sipeer ndaje yaay yoo xam ne mu ngi cosaan mi ngi soraano yaay joo xam ne mi ngi ci stade yi mi ngi ci làmb yi yaay joo xam ne mi ngi ci xumbal yi am na benn waay bëgguma wax turam parce que ñii dañuy enregistré daa nekk lu bona bona bona bon sa Alioune Sall da ne dafa am lu bon lu bona bon lu bona bona bon waa jooju nag daa nekk lu bona bona bona bona bona bona bona bona bon te suy wax ak man téléphone xam nga lu tax muy wax loolu mu ma mu may wax li mu nekk dafa ne sama yaay moo ma ci dugal sama yaay waa jooju moo ma koy wax mu ne ma sama yaay moo ma ci dugal gis ngeen kon yaay kon du hasard allahu subhanahu wa taala muy mu ne jigéen ñi nañ leen nañ leen aar jigéen ñi nañu muuru nañu muur seen awra mbokk yi ndeke hijab iffa fegu la fegu fegu day tax jigéen fegu lan mooy fegu mooy du nekk koo xam ne fu nu tourné gis ko fu nu tourné di daje ak moom mbëkkante ak moom nangam nangam wax ju bëri du déedéet jigéen bi day fegu day nekk ku aaru mucc ci lépp waaye ku yiiru waaye kuy jaamu yàlla il faut ñu xam ne hijab ibada jaamu yàlla la kenn du ci ñun fii toog est-ce que julli mën naa jot ñeme ñeme naa jot nga toog bañ a julli noonu ñu xamee ne ñun dañoo war a julli war a woor war a joxe azaka war a dem màkka war a war a parce que yooyu ay farata la noonu la hijab nekkee farata wala hijab du farata farata la wala du farata lu tax mu nekk farata damay laajte lu tax hijab nekk farata loolu laay bëgg xam bu ngeen ma tontu le du ma continuer
ay alquran.
bisimilah mbokk.
ndigalu yàlla tabaraka
ndigal la. ni yàlla waxee wa aqimi sala ni mu waxee wa atu zaka ni mu waxee sawmu ramadan ni mu waxee hajj nan la waxee hijab lu tax kon ñu nangu yow nga nangu sa jabar julli eh, julli nga yow ne waaw woor nga waaw jàpp nga bi ngay julli waaw lu tax doo waxee noonu ndax muuru nga lu tax ñu nangu li bàyyi li te xam ngeen ne loolu am na lu ci yàlla wax ci suratu baqara afa tuminuuna bi baadil kitab wa takfuruuna bi baad fama jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati dunia dégg nga ba- baat bi yàlla mu ne da ngeen a bëgg a xaaj diine ji ñaar gëm li bàyyi li xam ngeen lan mooy fayu ñu ko def torox ci àdduna moo tax ñu ngi nii torox wala jullit yaa ngi nii torox torox tànge weesul 95 pour cent mënuñu dara ñan ñoo ëpp Sénégal ah jullit yi lan la ñu tekki ministre sax amuñu ko 95 pour cent dara amuñu ko wala loolu toroxtaange weesu lool kenn du leen dégg bu ñuy def duñu leen laaj loi yi dañ koy indi seen kaw comme nu mu leen neexee xoolal code de la famille bi bu gën a dangereux te du l'islam te ñun ñu ne ñun ay jullit leen ah xoolal vendredi ñëpp dañuy liggéey du fet lan la ñuy feetu feetu yahuud yi ak feetu nasaraan yi loolu toroxtaange weesuwu ko toroxtaange weesuwul nasaraan yi nekk fi ñett ñuy dund seeni loi kenn du laaj bu l'islam te jullit ñi nag xasar moo tax yàlla mu ne fama jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati dunia te boobu mooy bu ndaw bi ah bu ëpp bu mag bi yowma alqiyaama la wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila asaddi alazab te boobu mooy bu mag bi bii moom lii la kon nañu xam ne xijaab nit ki war na laaj boppam ndaw si war na laaj boppam borom këram war na laaj boppam baayam war na laaj boppam ndaw si war na xëy laaj boppam ne kan moo ma sant mu muuru ku la ko sant jëkkër ji war na laaj boppam sama soxna si kan moo ko sant mu muuru doom ji war na baay bi war naa laaj doomam ne ko kan moo la digal lii mu fexe ba ndaw si am ci conscience suñu problème yëpp mooy ndeysaan mooy li mu ndaw si defoon sànq rek dafa ne da ngaa war a booy julli nga war a muuru booy dem dëj nga muuru booy dem gàmm wala màggal nga muuru booy booy buñ lay takk ngay sëyi nga muuru foofu mooy loolu mooy muuraay bu sëriñ bi ñëwee ci benn quartier ñu koy ziyaare ji ñëpp muuru bu amee ku dee nit ñi di dem di jaale ji saa yoo gisee Sénégal fukki jigéen yu ànd ñëpp muuru bu laaj bu laaj fuñ jëm demuñ ci jàmm de du jàmm waaw dëj lañ jëm loolu nag est-ce que diine la loolu mooy diine loolu du diine nit ki dafa war a xam ne ki ko sant mu muuru mooy boroomam subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala moo ko sant yàlla moo ne ci Qur'an ci suratu ahzab aya 59 yàlla mu ne yaa ayyuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzayna wa kana allahu ghafuran rahima yàlla dafa woo yonente bi kan la ñu njëkk a woo ci wax ji jiitu jullit ñi yonent lislaam bi la yàlla woo kon du lu ndaw julli bi mu jotee yàlla dana julli leen rek waxul ee yow yonent bi jullil wax gaa yi ñu julli ak sa waa kër waxu ko loolu waaye fii xoolal yàlla dafa woo yonent bi ne ko yaa ayyuhan nabi ee yow yonent bi waxal say soxna kon ndigal la amrun min allah ila rasul waxal say soxna qul li azwajik say soxna kese kon paa bi est-ce que wa- wa- jabaram rek la war a wax aan aan fiil hoore maande debbo watta hoore meere est-ce que kooku rek la ko war a wax muural sa bopp bi jigéen du def bopp neen wala doom yi ne ko wa banaatik ak say doom yu jigéen ñoom Aïcha ñoom Fatima Zeynab Rokhaya ak say doom yu jigéen est-ce que jeex na kon kon ñooñu rek la ñu ne ah yàlla kat yonent bi la wax ak doomam yi jabaram yi ak doomam yi la wax waaye mu ne ko wa nisaa'il mu'minin hal fi Sénégal nisaa'ul mu'minaat ah هل في السنغال نساء مؤمنات هل في غينيا نساء مؤمنات هل في غامبيا نساء مؤمنات bu fekkee ne ñetti dëkk yi bu nekk am na nisaa'ul mu'minaat xanaa dégguñu amru bi min allah ila rasul su fekkee jigéen ñi ñi gëm yàlla ñu ngi may dégg yàlla nee na ko wa nisaa'il mu'minin ak jigéen ñi gëm yàlla lan la ñuy def mu ne yudnina alayhinna min jalabibihinna nañu muuru dañu sol yére boo xam ne ca bopp ba lay tàmbalee wala kaala goo xam ne ca bopp ba lay tàmbalee muur ko ba mu paase dindi baat yi foofu tamit problème mi ngi fa tey ñun seetaan nañ seetaana seetaana seetaana seetaan ba suñu kër yëpp cëkkal kol moo fa nekk association cëkkal kol dama am benn waay benn xarit su gisee ku laxas kol mu ne ibaadu Tunisie dafa ñetti ibaadu la mu ne ibaadu Tunisie ibaadu afghanistan ibaadu ara- arabi saudi moom noonu la leen ñetti catégorie yooyu la leen def dafa am ibaadu tunisie ibaadu afghanistan ak ibaadu arabi saudi pourquoi lu tax loolu lépp muraay bi moo baaxul suñ la waxee muraay bi du question da nga jël benn sagar rek teg ko ci sa bopp bi dafa am ay charte dafa am ay charte ni ñuy muuroo du question rek jël benn sagar bu ndaw teg ko ci sa bopp bi daal di koy laxas laxas daal di koy sànni déedéet loolu ak bañ koo def sax moo yem parce que ki ko deful moom xam na ne def ko waaye kii di ko def def lu te baaxul sellul day nax boppam su ngeen demee ci youtube daf ca fam ay ay ay ay chapitre yoo xam ne gars yi ñoo koy def am na fa benn boo xam dañ ko tudde ash-shaytaan wal hijab seytaan ak hijab ndaw si dafa solu wala dem xew muuru muuraay bu rafet mu taxaw ci seetu bi seytaane ñëw taxaw ci ginnaawam ne ko mais foo jëm xel mi xel mi ne seet ga mu ne ko mais muuraay bi ëpp na lii seet gi xanaa xamoo ñi fay ñëw lii dafa ëpp mu ne ko wàññi ndaw si tasaat kaala bi xaw a daf bu xaw a yem mu ne ko seet xoolal rek mu indil ko ay ay ay nit xoolal diw nu muy muuroo xoolal diw xoolal diw te yow yow yaa ngi ñooñu yéen a yem ñooñu kenn waxu leen dara moom munoo mel ni ñoom mu gën a wàññiwaat ndaw si daal bu fekkoon ne benn muuraay bu nekk ci óom la jëloon dem na dem na dem na ba muuraay bi mu mujjee mënut a muur bopp bi mu laxas ko teg noonu génne nopp yi génne seen yi génne baat bi génne jaaro yi lépp daal ne nii ci seetu bi mu rafet lool mu ne dem na mu génn dem loolu la seytaane def ñu nag tey fexe ba xatta bu mu koy def sax duñ ko def mu sell te loolu nag moo gën a bon parce que mbir booy def sellul innama al amalu binniyat wa innama li kulli mriin kenn ku nekk la nga yéene ci lii ngay def moom ngay am kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi kenn ku nekk ci ñun war naa laaj mbir mi sama soxna di def wala mbir mi soxna si di def wala moom man mii mbir mi may def kan moo ma ko sant ku la ko sant kenn ci ñun fii tey boo amoon patron bu lay liggéeyloo bu weer dee mu fay la mu ne la raxasal ma fii ba mu set wala baleel ma fii ba mu set wala defaral li ba mu rafet mu dem est-ce que yow nu la neex nga koy defee tailleur bi bu ñu ko joxee yére ne ko ñaw ko nangam. mu ñaw ko loolu ba mu rafet borom bu ñëwee nu muy def hmm? day kontaan fay ko léeg-léeg sax mu jël dara coppati ne ko dama gën a kontaan bismillah bu ko deful noonu nag bu ko nee man paanloog semis laa bëgg mu dem ñaw ko caaye nag ñaw na ko wala ñaw ko ñaw na ko ah ñaw na ko mais waa ji bu ñëwee est-ce que dina ko fay du ko histoire lay am lu tax parce que ni mu ko defee du noonu kon nag kon niñ koy defee dañ koy xool waaw mu nga mu ngi noonu kon nañ nañu xam mbir yi niñ koy defee mooy ni ko yàlla bëggee ni ko yàlla bëggee yàlla bi mu bëggee ñu jaamu ko dafa yónni yonent bi na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw woon ñu naka la ñuy jaamoo yàlla loolu mooy laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah mooy man yàlla rek laay jaamu muhammad moo may wan ni ñuy jaamoo yàlla loolu moo tax ndaw si bi mu ñëwee ci ci ku jigéen ka lu mu ko wax est ce que wax nga laa ilaha illa allah parce que saa yoo waxee laa ilaha illa allah ba pare da nga ñëw ci yonente bi na ko acca mbir mi nu ñu koy dundee woon ma ko loolu mooy laa ilaha illa muhammadan rasulullah mooy man yàlla laay jaamu muhammad moo may wan nu ñuy jaamoo yàlla loolu lay tekki léegi nag ñun dañoo bëgg wax laa ilaha illallah bu pare ñu ne waaye nag muhammad duñ ko wande man daal gëm naa yàlla dinaa jaamu yàlla waaye nag muhammad du ma wan nu may jaamoo yàlla moo tax du baax yàlla du ko nangu man amila amalan laysa alayhi amruna man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu te war a képp mbir mi képp ku ci dugal lu ci bokkul yàlla dala koy delloo kon ñun ñëpp góor ñeeg jigéen ñi ku nekk war ngaa laaj sa bopp lii may def kan moo ma ko sant kan moo ma ko sant kan moo ma sant lii bu dee da ngay julli julli gi kan moo ma ko sant bi ngay waaj a kàbbar soo laajee sa bopp kan moo ma sant ma julli est-ce que di nga julli ni mu la neexee bi ngay waaj a muuru taxaw ci armoire bi di xool seetu bi ba nga yëkkati kol gi fëgg ko laxa faxas ko ba nga ko yaa koy waaj a teg sa bopp nga laaj kan moo ma sant lii ban tontu nga yam su boobaa est-ce que di nga ko def ni mu la neexee ah mu ngoog yàlla moo la ko sant yàlla mi nga xam ne moo la bind yàlla mi lay wërsëgal yàlla mi bind asamaan ak suuf yàlla moom mu xam li baax yàlla xam li baax ci yow xam li baaxal fi nga nekk yàlla xam li nga xam ne baaxul ci yow yàlla moomu moo la ko sant yàlla bu xamoon ne ne muuraay baaxul ci jigéen du ko sant yàlla dafa xam ne muuraay moo baax ci moom parce que muuraay mooy tax mu mucc muuraay moo tax mu fegu muuraay moo tax mu raw muuraay moo tax jigéen ji am jàmm moo tax yàlla daal ki koy sant kon ñun bu ñu xamee loolu dañ ci war a jàppale soxna soosu ndax lii yàlla bëgg ci moom mu nekk yàlla moomu moo ko bind moom moo wax ci alquran moom yàlla lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard asamaan ak suuf li fi nekk yëpp yàllaa ko moom kon ndaw si yàllaa ko moom ñun yàllaa ñu moom ki la moom nag lu mu la sant loo war a def maadaama moo la moom ki la moom kay li mu bëgg ci yow loolu nga war a def moom yàlla moomu subhanahu wa taala zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa xalaqa kulli shay'in faabuduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil moom yàlla moomu subhanahu wa taala amul benn buur bu ñu war a topp bu dul moom moom yàlla moomu moo bind lépp moom yàlla moomu gis nga moo tax mu ne faabuduhu topp leen ko jaamu leen ko waxiduhu na ngeen ko wéetal moom yàlla subhanahu wa taala mu ne wa huwa almunimu alayk yàlla moomu mbokk yi moo sotti xéewal ci sa kaw bokk na ci problème yi ñu am tey du ñu sant xéewalu yàlla ñu jàpp ne yàlla defalu ñu benn xéewal dafa am benn góor dafa am alal borom kër su amee alal ba alal ji bëri ba ni gàññ lu ngeen xalaat ci doom yi dañuy am wala dañuy ñàkk dañuy am parce que seen baay am na kon baay ji bi mu amee doom yi dañoo am baay ji dund juróom-ñett fukki at loolu mooy ñaata ci tubaab quatre-vingt ah juróom-ñett fukki at mooy quatre-vingts ans juróom-ñett fukki at góor gi xëy benn bis rek bëgg dem toilette tuur ndox mënu ko maanaam bëgg a saw mënu saw mu commence mu am problème mu woo doom yi doom yi ku nekk njëkkante sa oto parce que dañoo am alal ñu daw yóbbu ko ci hôpital bi gën a rëy yóbbu ko ci docteur bi gën a fort ci dëkk boobu docteur bi dimbali ko góor gi daal daal di tuur ndox maanaam daal di saw bu mu tuuree ndox ba pare jox koy garab affaire yi sedd affaire bi jaaraat yoon commencé normal docteur bi ñëw xale yi wër ko di ko gërëm ku nekk dugal sa loxo sa poos génne sa chèque di ko bindal chèque pour may ko xaalis parce que sauvé na seen papa noonu ñu wëree docteur bi papa nga ci lal bi tëdd ñu jekki-jekki dégg paa bi di jooy ah ñoom ñoom ñu bàyyi lu ñu doon def ñu ñëw ci ko ne ko papa lan la looy jooy yow léegi da ngaa feebaroon léegi alhamdulilah docteur baa ngi nii faj na la ñun ñëpp kontaan nañ ñu ngi nii di ko sant mu ne waaw jooy ma loolu ñu ko kon looy jooy mu ne ñaata at la am ñu ne ko juróom-ñetti fukki at quatre-vingts ans mu ne boobu léegi may lekk may naan may saw kenn dimbaliwu ma tey docteur bi dimbali ma rek yéen ñëpp ngeen koy sant te sant leen yàlla moo mayoon loolu lépp ñun kenn ku nekk toog fii ñaataan nga am tontul sa xel ku nekk toog fii ñaataan nga am tontul sa xel ba ba léegi yaa ngi lekk de ah muy jàll normal yaa ngi naan ah muy jàll normal yaa ngi xool muy dem normal yaa ngi dégg yaa ngi noyyi yaa ngi wax yaa ngi dox yaa ngi dem àll ba nu mu neexee yaa ngi tuur ndox nu mu neexee est-ce que yooyu sant nga yàlla kanti ñu moom musa dugg ci toilette bi génn pare rek daa dem jàpp julli ñaar raak mu ne maa ngi sant yàlla ci li xé- xéewal bi yàlla may ma nii affaire bu mu bëggee génn rek génn na kan ci ñun bi moo koy dox ba ñëwaat rek mu ne xaaral ma sant yàlla li kan ci ñun moo xool ba guddi bala muy tëdd rek mu ne xaaral ma sant yàlla kan ci ñun fi moo déglu ba ci yàgg mu ne xaaral ma sant yàlla ci li kan ci ñun fi gars yi ñun sax dañu yaakaar ne force la waaye fal force damay xool ah oui lu tax duma xool fal force ñun jàpp nañ ne force la parce que dafa yomb ci ñun ba léegi ñu yaakaar ne fal force la bu ñu ko yàlla joxul dañ koy poñe ne ko lu tax xooluma tey wala dégguma duñ ci sant yàlla xoolal góor googu mu ne juróom-ñett fukki at yàlla di ma ko defal mu normal kenn dim santul yàlla tey kii dimbali ma benn fan rek benn fan la ma dimbali rek yéen ñëpp ngeen koy remercier jërëjëf docteur jërëjëf merci beaucoup vraiment tu as des noms ah ah eh, mais ah kenn santul yàlla ah waaw kenn delloowul yàlla njukkal wala waa ji benn fan rek ñu ñëpp ñu gërëm ko génn ku nekk di bind di ko jox alal yàlla nag subhanahu wa taala te huwal munimu aleyk yàlla moo sëmbërtal ay xéewal ci yow wa ma bikum min ni'matin te wa in tawdu ni'matallahi wallahi la tuhsuha su ngeen doon wàññi xéewal yi leen yàlla defal kenn mënu ko law kaana al bahru midadan loolu la yàlla wax lu ci tegu ah law kaana al bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na muslimin madada bu géej gi yëpp nekkoon encre garab yi nekk ay xalima ñuy capp di bind xéewal yi ñu yàlla defal yàlla mu ne géej gi dana jeex xalima yi dem xéewalu yàlla des waaye problème bi mooy kenn sant ko te tey sa jabar sax bu la toggalee ceeb bu neex nga ni ko suu ceeb bi bu la defaroon sax benn jus bu neex fi mu nekk ni ku jóge woon ci ñun waxtaan bi nga ñëw rek ñu tegal la benn façon jus boo xam ne da nga ko naan ba sa yaram bi yëg te waay macha allah mais yow allah waay waa ngay commencé sant ndaw si loolu tax la yow doo sant yàlla pourtant du du du ndaw si moo ko neexal de kan moo ko neexal yàlla bi nga ko naanee mu ñëw ci put gi yàlla bàyyi mu jàll boobu nga yëg neex gi bi nga ko naanee bu yàlla ne woon du jàll nag ku am angine est-ce que dina am lu neex ci moom dem leen ngeen fekk ku am angine ngeen toggal ko ginaar ngeen dem bioche doore jënd mburu ngeen ñëw teg ngeen dem jënd ay fruits ngeen jënd lépp ngeen ñëw teg ngeen ñëw ci ko ko am angine nga ne ko bismillah euh, nañ añ wala nga fekk borom bëñ buy métti bi bëñ bi métti na weer nga dem indi reer boobu nga teg nga ne ko bismillah nañ reer nii lay defal moom du du fa nekk sax di wax ak yow moom da xoolal baaraam bi lay wax ak yow noonu gis nga moom xamul lu neex yow yaa xam lu neex parce que yàlla moo la may jàmm waaw akbar moo tax boo lekkee mu neex boo lekkee mu rees boo boo boo yàlla la du lekk bi du lekk bi yàlla la yàlla moo ko neexal bu fekkoon ne yàlla da ko bàyyi ba mu nekk ci biir bi nag yàlla mu ne bagage yi yi nga yiñ dajale woon pombiteer yeeg carotte yeeg ñaambi yi ak ndox meeg ceeb beeg lépp yàlla mu ne xeex leen ci biir di nga toog ku nekk utal yoon boo jaar pour génn est-ce que yow dina di nga di nga di nga di nga yëg neexaay kon yàlla la allahu akbar moo tax yàlla la nañu delloo yàlla njukkal mbokk yi ñu xam ne lii yàlla di ñu sant dañ ko war a def c'est parce que yàlla moomu dafa am lu ñu defal lu dul jeex incha allah mbokk yi ci tënk bu gàtt fàttali rek la doon doon lu bari la waaye lii dinañ ci doy incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu